mbokk yi euh, di leen jaajëfal ci ànd gi teewlu gi seen site numéro un de l'actualité sur mobile groupe euh, Sénégo Média amal leen fii direct ci fii hôpital principal ci levée du corps sunu mbokk naataango yooyu nga xamante ni ñoom ñoo euh, daanu ca champ de bataille ga 31 mai bi nu génn mu di sunu ñetti confrères yooyu ne ca leeral di Ousmane Ndiaye chauffeur. Euh, Yoro Dia cadreur ak euh, Abdou euh, Mamadou Sy di ab journaliste yal yàlla yokk seen leer taas ñu ci seen i barke kon ñu ngi nii di waajal levée bi fileeg ci kanam incha allahu rabbi rek ngeen gis mbooloo mu takku mi ñëw wuyu si levée du corps waaye tamit ngeen gis taskatu xibaar yi mobilisation gu am solo gi nga xamante ni daal nañ ko amal voilà. donc euh, euh, ñu ngi leen di bàyyiloo xel ni ñu ngi fii ci euh, hôpital principal ci levée du corps agent leeral yooyu nga xamante ni yàlla def na li gën ci ñoom yal na yàlla yokk seen leer taas ñu ci seeni barke lii metti na lool nag ndax da di accident goo xamante ni mi ngi am ci tourne économique bu président de la république Macky Sall doon amal ci biir réew mi waaye yàlla dogal loolu am kon daal ñu ngi masawu encore une fois euh, njabootu ñi ñàkk euh, di wax ni yàlla yokk seen leer taas ñu ci seen euh, barke ñi defe na ay mbokk la ci ñi nga xamante ni ñoo dem ñu jël ay réaction rek. a am expérience. teel a xarañ ci wàllu dund ak doomu aadama euh, malheureusement mu teel a siiw way ah. bi mu nekkee xale bu tuuti ci seen classe xale bu siiw la woon nitu devant la woon maanaam fu mu nekk kanam la ko yàlla di féetale loolu yàllaa ko bindee noonu mu liggéey lu am solo ci suñu mbooloo mi fi ne pour développement dëkk ba wax dëgg yàlla technique yi yi mu doon joxe euh, commencé wuñ ko utiliser na mu waree waaye nag lu ñu bind la xam xëy na lii la yàlla dogloon ci ab dundam mais dinañu njëriñu donte moom jóge na fi parce que la mu indi woon pour ñu développer ko suñu dëkk li de dix points dix points yooyu ñu ngi ko bind ci suñu ay carnet loolu lu ñuy njëriñoo la incha allah donte moom jóge na fi ay ati at dina doon njëriñ pour waa village ba effectivement fas yéene nañ ko jëfee parce que dafa dafa tëju lu yàgg di bind bi mu ñoree ci moom mu indi mu tegal ñu ko ñu ne ko lii nag pour ñu comprendre ko ñun ñi nga xamante ni suñu expérience taxu tax koo demee noonu faw nga may ñu temps nag faaw nga may ñu temps bu xaw a kii tuuti ñun itam ñu xalaat ci waaye malheureusement laataa ñuy commencé liggéey la mu tëraloon ci groupe bi yàlla moom ko waaye daanaka lu ñuy utiliser la euh, ñu ngi koy jaale waa Sénégal parce que dafa bokkoon ci presse bokkoon ci Leeral FM ñu ngi jaalee le directeur ak ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey ak moom waaye di jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci accident bu metti bii ñu koy jàllee ala kulli xaal waa Sénégal di am mettit lu lool lool lool ki sore woon ci ñun lool am ak jàmm ñëpp ñëpp yàlla def ko itam nitu diine gëm borom bi tabaraka wa taala gëm diine waaye itam ñëpp xamee ko nitu dëgg dañu naan abu si kum ni muy waxee yépp nitu dëgg la nitu diine nitu dëgg waaye ku am xarañteef li ko yàlla dénk ak ak domaine boo ko mën a yóbbu nag yàlla da ko ci mayoon ab xarañ xëy na nag lii yëpp la yàlla doon boole ci dund wu gàtt rek defal ko ko laataa muy dem turam jóg ba bépp sénégalais dina tudd turam ala kulli xaal gëm nañu yàlla xam nañu fii la mission bi yam waaye li mu liggéey moom loolu dinañu wéy di ko continuer incha allah. il avait fait un chemin pour que tout un chacun non. voilà la rek dafa metti ci xale yëpp wax euh, loolu moom daw na yaram mbokk Abu Mohamed euh, nekk journaliste leeral bokk ci ñi dem ñoom ñoo doon def ay témoignages yi am solo euh, mel na ni daanaka li mu fi bàyyi ci héritage lu mat a bàyyi xel la. Eh, ndax mi ngi nettali ni fukki poñ yoo xamante ni ci ay xalaat yuy jëmale goxam kanam bàyyi ko ñamu nekkaloon eh, doon na lu am solo trop trop trop trop. Eh, loolu nekkoon ay témoignage ci ay jegeñaaleem ci ay mbokkam kon lii moom mooy li fi amagum ci presse bi yëpp daje fii fas yéene rendre un dernier hommage euh, aux trois confrères yi nga xamante ni yàlla dogal na ñàkk nañu donc euh, jaajëf euh, donc c'est la presse qui est mbokk yi ñàkk nañ waaye ñun tamit dañoo bokk ak ñoom tiis bi bokk ñoom ñàkk yéen a ngi dégg noonu daanaka jooy yi ci mbokk yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñoo fekkee levée du corps bi affaire bu daw yaram euh, daw na yaram trop trop trop trop vraiment ñaan yàlla na yàlla yàlla dolli leen yërmande fanu jëm gënal leen fi nu jóge Je rappelle que nous sommes à la levée du corps de nos euh, confrères euh, qui ont péri au euh, champ de bataille lors de la tournée économique du président Macky Sall à Kédougou. Voilà, trois éléments euh, du groupe Leral qui nous présentent nos condoléances. di yal na yàlla yokk seen leer taas ñi pour le moment ñu ngi ci euh, porte bi euh, amaguñu accès ci biir euh, doon recueillir quelques témoignages ci ay mbokk ci ay xarit ci ay soppe ci ay jegeñaale waaye rawatina ci ñoo xamante ni nii ci presse bi lañ bokk kilifa bi voilà nu mu tudd ki doon wax sànq Euh, présenté wu na de au début mais dama jàppul tur. dama ko war mu présenté wu. ok. ok. mais patron de presse bi mu taxawee. mu taxawee. si c'est Cissé naka ma. maa ngi sant bu a baax. quelques kon mbokk yi ñu ngi ak euh, Cissé bu leeral nga xamante ni nekkoon euh, collègue gu ñi dem ñu bàyyi. Euh, ràññeeku lool ci ñi nga xamante ni dëdd nañ ci nga doonoon bu leen jege lool am lu bari lu ngeen seqoon tey bàyyi nañ dëdd bu rëy a rëy rëy ci gis waaw un un un vide incommensurable vide boo xamante ne tey mënuma la wax lan moo koy combler après je di depuis keroog maa ngi naan est-ce que man je vais pouvoir continuer à exercer ce métier sans pour autant gis leen ñoom sama wet ce sont des personnes très spéciales ci man des gens yoo xamante ne j'ai avec eux d'excellents moments mosuma leen gis ñu mer mosuma leen gis ñu xuloo ba ñu saagante seen biir Abou Sy que j'appelle mon de confiance su meree rek parce que tu na pas bien écrit ton chapeau su meree rek parce que sa élément jàllul journal su may répartir les tache lui il se précipite pour def pour def ko donc ce son des personnes yoo xamante ni ils sont sont son sont irremplaçables donc di leen ñaanal yàlla xare leen aljana loolu laa ci mën a wax. xol yi fees na loolu métti waaye tamit euh, euh, yow nga fas yéene euh, ànd ak kenn ci ñoom ba ci diwaanam muy Abou Mamadou Sy loolu yu loolu yu firndeel ni rek maanaam li ngeen seqoon sori na lool for trop wax naa la ne abu avant même l' accident à 9h bi mu bindee chapeau dama ko woo ne ko jàmbaar tu bon. mu ne ma DG tu fier de mois ma ne ko je suis déjà fier de toi loolu c'était à 9h25 il a raccroché avant ci guddi gi ñu ngi doon waxtaan mu naan ma je ferai le maximum pour que lépp loo xamante ne def nga ko leeral commencé nga ko ma tàmbali ko du ma def dara ci métier bi loo xamante ne di nga ko umpale on partageait d'excellentes relations man ak moom moo tax bi mu raccroché ma dem di sangu génn ñu woo ma ne ma il n'est plus là jour ba léegi mënu ma ko ba léegi mun ma koo gëm d'ailleurs bi muy dem muy naan ma on avait beaucoup de projets on partageait beaucoup de choses man ak moom au-delà de rédaction bi on avait beaucoup de projet bi muy dem mu ngi may wax ay projet mais ne ko soo ñëwee on commence ça malheureusement pour moom daf doon wax daf doon taxaw rédaction mu ne ma tant que aw ma tant que ma ba couvrir guerre man Aboussi ma ne ko ah mu ne ma du ma am lu ma neex su guerre amee ñu war a leeral war a dem yónni ma man DG donc loolu moo nekkoon suwee wam daam ginnaaw bi ñu la masawoo di la jàllin bokk si si dama juum eh. ah, ginnaaw bi ñu la masawoo di la jàllin bokk tey ku ne xam ne tey xoli neexul parce que ki nga ñàkk ak ñi nga ñàkk laay wax ku leen ñàkk tey dinaa am lu fàq ci yow tey lan moo la gën a marqué ci ñi nga xam ne moom nga ñàkk tam dem euh, mënuma la wax ñàkk bi nu mu mel ci man jàmbaar mënuma la ko wax durant toute ma vie musuma am lu ma méttee lu mel nii tey lii lu metti la ci man parce que j'ai perdu des frères du ñu samay collaborateurs de du ñu samay confrères de mais c'est une partie de mois qui est partie donc lu metti la ci man mënuma ko mënuma ko expliquer depuis barki démb je n'arrive pas à dormir mënuma nelaw dafa mel ni ñu ma bokkal ndey ak bàyyi ñoom ñoo dem ci condition yii nii donc ñàkk bu metti la ci ñun bu metti lan nga mujjee dund ak ñoom lu des sa bopp loo xam ne tey mënatoo ko fàtte mu des sa bopp. ci Abou Sy li ma mujjee dund ak moom yu bari chaque jour dañ doon nekk du am heure wala minute boo xamante ne du envoyé message wala mu war a bind dara ne ma corrigeel ma wala xoolal ma. 9h25 lañ doon wax man ak moom bi mu dugalee chapeau ba pare ma woo ko téléphone le jour de l' accident demaguma bureau ma ne ko c' excellent jàmbaar. parce que jàmbaar laa ko doon wooyee mu ne ma tu seras fier de moi déjà ne ko je suis déjà fier de mu raccroché ma dem sangu ñu woo ma ne ma il a fait un accident bu dee yoro la li ñu mujjee dund mooy cité au bureau avant muy dem maa ngi ko fekk mu toog ci ci moto bi ma ne ko yow moom da ngay isolé rek mu ne ma non quand je n'ai rien à ci biir je préfère ma toog fii di di cogiter quoi ma ne ko c'est excellent ma ne ko ministère de des finances euh, microfinance woo nañ ma nee nañ tu a fait un excellent continue comme ça dina baax mu ne ma yaay sama yaay sama idole le chauffeur Ousmane moo mu doon yóbbu moo mu doon indi c'était mon chauffeur bi mu dem mu ngi naan ma sama doom dafa feebar maa ngi dem mais su ma ñëwee après xam naa dinaa concentré wu tuuti ci moom ma ne ko incha allah vas dina baax quoi ko yow moom jàmbaar nga tournée yi tournée yow da yaay dem quoi donc mu nekk ñett ñoo xamante ni ce sont d'excellentes personne mosuma am ak ñoom ay xarma yàlla mukk leen wax dara def leen ko ñu hésiter jamais loolu loolu laa mujjee dund ak ñoom. Massa ah, ñu ngi lay Massa. Mamadou Cissé. Bah, on était avec Mamadou Cissé le rédacteur en chef euh, de Leral.net euh, doon amal ay témoignages amal kàddu yu noonu euh, ci ñi nga xamante ni ñoom leen ñàkk di ñaanati encore une fois au nom de toute la presse ndax ñun ñoo bokk. kilifa bi. <laughs> donc presse euh, bi ñàkk une fois ñu jaale ay njabootam di jaale euh, la presse comme ni ma ko waxee sànq ndax euh, li am ñun ñëpp a ko bokk. ki doon wax sànq di Mamadou Cissé nekk euh, rédacteur en chef euh, groupe Leral di fàttali dernier moment yi nga xamante ni moom la ñu dund ak euh, sunu ñetti jàmbaar yooyu yi nga xamante ni dañu daanu ci xare ndax ils étaient dans l'exercice de leur métier àndoon ak président de la République Macky Sall ci tournée gi mu doon amal ci biiru réew mi. waroon dem Kédougou ndax ca veille ba lañu waroon euh, dem couvrir ji euh, inauguration hôpital ba محل بالماركة ان شاء الله Ah, ya, eh, mira, doy 10 heures, doy 10 heures minutos, 10 heures minutos. Yo no, yo andaré con duro, eh. Hello?

prennent en charge les bourgs, les accompagnent en mettant à la disposition des organisations pour permettre vraiment les bonnes dans très bonnes conditions. Parce que donc on les félicite, c'est parce que non, bañoon rek président mënuñ leen fàttali yéen a teewlu en direct nii seen site Sénégo ci levée du corps Euh, sunu ñetti naataangoo yi ñetti jàmbaar yooyu nga xamante ni sont morts au champ d'honneur au champ de bataille dans l'exercice de leur métier nekkoon ab tournée gun doon euh, ànd ak président de la république Macky Sall euh, yàlla dogal li am am tamit di ñaan yal na leen yàlla yërëm yokk seen leer taas ñu seen barke. Euh, c'est dur, c'est vraiment compliqué, c'est dur pour toute la presse. xanaa euh, rek di ñaan yàlla suñu yàlla na yàlla jéggal leen voilà donc métti na vraiment c'est dur c'est dur mais ah Babacar voilà donc di nuyu sunu yenn mbokk confrères yi Moussa maa ngi lay ziar dafa mel ni moom mbir mi ñëpp a ko bokk copain ah Cheikh ah moom moom lu nu bokk la nun ñëpp nga xam ne ndeysaan eh, bi nu déggee nouvelle bi ñun ñëpp daanaka kenn kenn kenn nelawatul ndax. mënoon na woon doon kenn ku ne ci ñun waaye ñu ngi ñaan yàlla rek fa jëm gënal leen fi nu jóge eh, voilà donc xam naa fi léegi di leen masawa ndax kenn ku ne ci ñoom dañ lay denc ji eh, eh, sa dëkk voilà donc maa ngi nii di leen jëlal tuuti ambiance. Tcherno, na Malik. Ah, Tcherno Malik, je suis là. Euh, on venu quand même compatir euh, ànd ak gars yi ci douleur bi ndax nun noo ko bokk waaye tamit ñoom seeni njaboot yi ñëw nañ ñu ngi jël sànq ay réaction ñu ñu bokkal liggéey bi affaire yi moom daw na yaram waaye ñaan fa nu jëm gënal leen fi nu jóge waaw ah, xëy na yàlla def li gën waaleykum salaam ah, bisimilah Pape Doudou Pape Doudou maa naka mu. sant nekk njiital euh, cadreur yi ci presse euh, en ligne bi euh, Pape Doudou defe naa li nu dal noo ko bokk waaye yow nga teewee tey levée du corps bi yan yan kàddu ngay yëkkati ci li am. yaa Moussa merci di merci say internautes encore une fois tey nag li ñu fi dajale naqar la tiis la mais nag dañuy nangu rek euh, di di masaw bu baax tous les cadreurs professionnels du Sénégal nga xam ne natt bi ci ñun la dal di ko di ko naqarlu nag bu baax a baax a baax a baax loolu moo ñu fi andi tey loolu moo ñu fi andi tey ñu sant bu baax a baax a baax a baax teewaayu technicien yëpp euh, mënuma wax yaa Moussa nii ñaanal rek ñi nga xam ne jóge nañ fi te te yàlla suñu borom xaare leen àjjana c'est l'essentiel quoi waaw ah, c'est l'essentiel mooy nuyu sa mbokk internet yëpp Sénégal merci. voilà donc nekkoon Pape Doudou sunu mbokk naataango di cadre jiite association ñi nga xamante ni. Djibi Diallo ba pare. Djibi Diallo bu waxee rek wax na Djibi Diallo ñu jiite ñun kii wax na ba pare wax na ba pare pour ñëpp ah mais jox ma sama t-shirt gaaw Malick aywa waaw ah, Malick a ngi noonu di gérer wàllu t-shirt yi yaa Moussa eh al ma ñu jël ñu jël ci t-shirt yi Malick em rek maa ngi sa ginnaaw Malick oh. donc euh, kooku di ay séddale ay t-shirt yoo xamante ni tam c'est une façon de leur rendre hommage voilà c'est une façon de leur rendre hommage euh, Malick nga xamante nii. Euh, waxuma ñu téye ko nag nañ ko sol. t-shirt yi pour lan la. t-shirt yi rendre hommage suñuy confrères rek. ah waaw waaw nan nan ma may. c'est juste pour ñu rendre leen hommage. accident yi bëri na ci jot na léegi ñu xoolaat yi fi parce que. boo demee boo demee ci les chiffres yi eh, rien qu'en deux mille en deux mille dix huit am na deux mille cent soixante six tués tués laa wax de bokkul ñu gaañu bokkul ñu am ay infirmité bokkul dégâts matériels yi est que dañu kon na ci réew mi tout le temps di constater accident am na duñu jëlee mesure est-ce que tali yi moo am problème ñu xoolaat ko bu fekkee ne euh, chauffeurs yi ñoo am problème ñu xolaat formation bi bu fekkee oto yi ñoo am ñu xoolaat oto yi parce que mënuñu jël jël réew rek chaque année ñu constaté accident di dem muy law. d'accord il faut ñu jëlee mesure. mais dégg njiitu réew wax maanaam ne dinañ gën a renforcer li di contrôle euh, ci ñi nga xam ne ñu ngi dawal euh, maanaam di nekk ci tali bi loolu baax na kon renforcer contrôle bi baax na mais il faut ñu contrôler ñuy contrôler. cest il faut qu'il y ait évaluation dañu war a renforcer contrôle bi gaa xam nga affaire du wax rek jëf ko la. jëf mooy mooy tax yi fi changé réew mi dañu yaakaar ne bu ñu waxee rek yi fi changé rek parce que discours yi dafa bëri ni dee dañoo bëri ñun ñëpp on a été touché par les am sa frère am sa sœur dee ci accident man am naa ci ku dee 2009 accident la ru moo ko rey mais amul changement je pense qu'il faut ñu il faut ñu arrêter discours yi def lu ñu war a def ministère des transports yore loolu war a war liggéeyam ñu ko war def bu leer ñu sanctionné wala sanctionné nit ñi effectivement nguur gi responsable mu engage yu parce que ñoom ñoo war a defar tali yu baax ñoo war a vérifier oto yi war a dugg ci réew mi est-ce que ils sont conformes aux normes ñoo boo demee Côte d'Ivoire tali dafa yaatu mais fii surtout tali boobu de jógee Dakar dem dem Tambacounda dem kii Kédougou mais ñëpp gis nañu camions yi bu ñuy daw ci dëkk tali bi la ñuy daw lu ñu wàcc soo wàccul yow di ñëw da lay rey te camion dañuy puissant boole ci même bus yi di daw du ñu wàcc tali tali bi dafa xat guddi yenn saa lumière du baax chauffeur dañ leen di sas ñu xamante ne mënuñu ko ne ko indil indil versement guddi bëccëg ñuy taw duñu du ñu reposé wu contrôler fu nekk ñu contrôler perte ñu bëgg a perte contrôle boobu bëgg a rattraper temps perdu boobu yàqamti am aussi ñu si def nax noonu ñu di drogué wu def loolu tout ça c'est pour man c'est des il faut ñu def assise nationale ah assise nationale de la sécurité amoon ci ay waxtaan yu yaatoo ñu jël ay responsabilité assumé ko ñu bàyyi wax ju bëri ji parce que tey lii ñu dal ñu waa presse bi métti na mais chaque jour Sénégal lay dund ko fu nekk da nga def accident Sénégal quinze morts trente morts cinq morts du am dara ah réew mi am na joolaa joolaa am na fii ci réew mi Sénégal moom c'est la plus grande catastrophe maritime au monde plus de deux mille cinq cent morts pour mujjee ba ñu continuer di nekk suñu nekkoon daaw mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on ne peut pas jël xew ñu changé ko ñu wàññi kenn waxul accident daam ab réew moom accident dina am partout. waaye waaye mais comportement dawalkat yi comportement man yow sénégalais bi ñun ñëpp ay dawalkat lañu naka la ñuy ci tali yi Sénégal nga ñëw soo amee soo demee si euh, rond point do xal kan xam nga ko moo priorité lu waaye neex dawal charrette yi mbaam yi nit ñi oto yi moto yi chacun comme du comme il veut tali bi amul yoon am nañu dawlu fii xamuñ sax luy tableau signalisation wala mu signifie nga gis oto bu am cinquante ans mënul daw ñëw am visite technique fu mu jaar quelles sont les mesures qu'on a prises pour éviter am nañ oto tey fii pièce am defatu defatuñu ko sax si àdduna super yi amutul pièce ñu ko defal loolu. maanaam daal li ngay woote mooy ay Aziz. mais si impératif. Mhm. sinon tali yi dañu ko rey nit ñi rey rey yu bëri chaque année on fera le même constat. Mhm. il y aura pas te bu ñu defee constat ba liggéey na ndax yaxeet yàlla bu ñu décidé dara dañu ko appliqué. du wax rek wax rek jël cons dugg ko tiroir taxawaat di xool. xam nga enjeu yi bëri na. ah ñu nànk transport bi bëri na. lobby yi bëri na. mais il faut il faut que les gens prennent leurs responsabilités. sinon fekk dix ans on va faire les mêmes constats. ku nekk Sénégalais bu nekk sa kër am nga loolu daal ci mbirum accident Sénégal. merci beaucoup voilà defe naa ki doon wax kenn du ko présenté euh, di suñuy kilifa di suñuy ay doyen ci milieu bi di Alassane bu groupe euh, E-Media donc doon yëkkati ay kàddu njaal waaye di yëkkati tamit ay kàddu leeral ci li nga xamante ni voilà donc euh, nu wëyale témoignage yi jël donc ñu jëlal leen

salaamaaleykum soxna Ngom ñu ngi ziar so alhamdulilah xam naa ne laa xam naa ne laaxatu nga ma ñaari baat rek. waaw waaw Clédor euh, dafa teew tamit ñëw compatir ci li nga xamante ni moom moo am. dal ci kaw presse bi ñu bokk ko ak moom ndax ñoom it ay partenaire presse bi lañ ndax bëri na lii xew ci réew mi ñun nag ñoom a koy sëkk ci ay waxtaan ci ay interview kon bu lii amee ñoom seen teewaay du nu jaaxal Clédor nga teew tey ci levée du corps ñetti agent leeral yi yàlla def li gën ci ñoom ci tournée économique bu njiitum réew mi doon amal tey nag ñu war a def seen levée du corps euh, sa teewaay ak kàddu yi ngay yëkkati ci li ni sama teewaay pour euh, bokk ak famille yi d'abord euh, naxar bi parce que famille yi laa ci jiital parce que ñoom ñoo ñàkk famille Abou Sy Yoro ak keneen ki des ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla xare leen na àtte leen ci laabiram ci yërmandeem Euh, gannaaw loolu euh, famille press bi euh, lu mel ni bu dalee ci seen kaw sama teewaay day war parce que comme ni nga ko waxee partenaire laa ci ci presse bi yëpp d'ailleurs groupe Leeral daan nañ ma invité ci seen émission bi ñuy wax comme politique te jour boobu ndeysaan ndem si yàlla yoro moo nekkoon suñu cadreur mais ñaanal tam ku mel ni Thierno Kane bu Leeral ak. Euh, soxna si nga xam ni moom tamit euh, dafa am ay blessure soxna Aïcha def naa euh, yàlla defal leen tawféex yëkkati leen delloo leen seen wér ak seen kàttan parce que Thierno dafa bokk ak man pas-pas ci wàllu gaz ak pétrole te ci waxtaan rek la juddoo ba mu jóg di ci def ay gëstu ak ay di échanger man lu bëri ci loolu loolu boole nañu loolu moo tax au-delà de des familles Euh, ñoom dama leen a xam euh, da da dama liggéey ak ñoom donc euh, tey moom du bésu leneen lu dul jébbal njaal taxaw fami yi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk di ñaanal ñi ci ay gaañu gaañu yàlla delloo leen seen wér ak seen kàttan say leneen li tamit tu es activiste da ngay faral di eh, kaas lu bëri loo xamante ni xëy na dafay da ngay jàpp ni bu nu ko ñàkkee def mën na indi réew mi gàllankoor ndax li tax ma bëgg a laaj eh, ma wax loolu mooy li am accident la te accident bi li ko waral tamit ñu bëri ŋàññi nañ mauvaise conduite yenn chauffeurs yi ak ñàkk respect code de la route ndax accident yi bëri na Sénégal eh, alors tey jii nii xëy na yan kàddu ñaax wala recommandation nga ci yem ngir li ni mel bu dee ndogal mënta ñàkk ko moytu. waaw euh, ñun ndogal bi lañ ciy jiit ji jiital parce que accident mooy loo xam ni dafay am ci lu dul teyeef luñ ci mën a sore euh, digg fekk enquête bi parewul waaye dégg nañu ci témoignage wu ki nekkoon ci camion bi ni seen a dafa toj ba ñu perdre contrôle kon loolu du teyef loolu accident la loolu nag bu faralee di am dañuy indi ay jàngat ci wàllu sécurité ci wàllu lu nekk mais dañ koy teg d'abord ci ci ci ndogal bi mu doon ba pare léegi nag euh, euh, jàngat bi rek mooy mu ngi am ci yoon bi nga xam ni dañ ko doon ubbee ay hôpitaux ci gox-goxaan yi nga xam ni dañ koo tumuranke ñi nga xam ni dañ cee gaañu euh, dañ leen rawale ba Dakar pour jël leen en charge kon tournée yooyu ñu doon def pour teg ay structure hospitalière ci biir dëkk bi day wane ne rek ni tournée bu pertinente la lu ñu soxla la du ma wax ci yeneen aspect yi mais infrastructure yooyu bu fekkee ni tasaaroo na ci réew mi du soxla ñuy évacuer nit euh, Kédougou ba Dakar pour jël ko en charge je pense aux blessés qui sont là à l'hôpital principal. voilà donc mu nekkoon euh, Clédor Sène euh, njiital Clair Vision di mouvement am gindi askan wi dañ yëkkati ay kàddu njaal ak it moom njàngatama gis-gisam ci li nga xamante ne moom moo fi xew kon mbokk yi ñu ngi ci. levée du corps bi moom mooy dox di wéy rek ngeen gis mbooloo mu takku gi ñëw ànd gunge sunuy naataango yooyu nga xam ne eh, yàlla def na li gën ci ñoom eh, di ñaan yal yàlla yokk seen leer eh, taas ñi ci seen bark la presse ak euh, njaboot yi ñi nga xamante ni ñoo deele levée du corps gi noppi nañ ci ambulance baa ngi noonu war a yóbbu euh, corps yi donc di ñaan yal na leen yàlla jéggal yal na yàlla yërëm na yokk seen le tax ci mbar di leen fàttali ne ñu ngi fii ci levée du corps sunu ñetti naataango agent yooyu nga xam ne dañ liggéey groupe leeral génn àddina ci tournée économique Macky Sall gi nga xamante ni euh, ab accident la woon donc ñu bàyyi leen ak ces moments euh, d'émotion ces temps forts voilà donc lu daw yaram wala ñee ngi commencé jooy am na kër xol euh, ambulance baa ngi noonu di leen yóbbu ci këru dëgg waaye yal nañ fa fekk leer ak tawféex fa nu jëm gënal leen fi nu jóge yal nañ yàlla jéggal naataangoo yi sax euh, ils ont les larmes aux yeux euh, ndax euh, métti yal na yàlla yokk seen tas sama jëm gënal ñu fi ñu ji corbillard bi corbillard baa ngi noonu promotion bi euh, tàmbaliwaat na euh, des confrères euh, yi nga xamante ni ñoo dem ñi voilà donc. Bougane Gueye des médias voilà euh, monsieur Gueye rek quelques mots donc voilà nee na juste mi ngi noonu doog a si ñu bëggoon jël euh, réaction euh, donc.

ba Bougane nangoogul wax euh, il nous donne rendez-vous juste après donc euh, moom mooy doog a yegg si euh, di PDG d média ànd ak délégation peut-être avoir d'autres témoignages am yeneen réaction fii lekk ñuy yëkkati jotaay bi ndax ambulance bi moom dem na euh, voilà donc euh, li fi am daw na yaram voilà donc échange de bourre très bon geste euh, de la part du groupe des jeunes reporters voilà buur géwél euh, buur li nga doon def am na solo de parce que gis nañ taxawaayu jeune reporter ci bés bi mënuñu ko ñàkk ba ñu tudd ci joxe ndox ci solo t-shirt patron de presse yi buur. dama ko dama ko wax léegi jox t-shirt bi. ne ko dañu am ci yéen yaakaar. yéen les patrons de presse. gën a jàppale xale yi. ñu góorgóorlu ci ñoom dañoo am ci ñoom yaakaar. waaw donc euh, mooy di kàddu yu am solo seen taxawaay lu mat a bàyyi xel la ci bés bi merci buur voilà donc. Euh, respect naka mu ça va grand bi le respect naka moom voilà groupe Leral a ngi noonu doog a yegg seeg seen cortège bi euh, ñu jël image yi. mat a leeral a ngi noonu ah. donc no com ah. donc no comment fas yi yi yóbbu néew yi ñoom ñooy jaabante noonu ba may ñetteele ambulance bi eh, ci bi oto leeral jiitoo eh, encore une fois ñu fàttali leen yéen a ngi ci eh, levée du corps gi fii ci hôpital principal sunu ñetti naataango yooyu yàlla dogal li gën ci ñoom di leen jaale seen njaboot di leen jaale presse bi yëpp voilà kon voilà baa ngi doon di avancer. jël quelques réactions. Euh. Pate ziar naka mu voilà tuuti euh, jël euh, mbokk émotion bi métit bi ñëpp a ko bokk waaye na yàlla def li kon di leen jaajëfal euh, ci ànd geeg topp gi ngeen doon topp direct bi ci yiñ leen fi amaloon ci hôpital principal ci lever du corps euh, ñi nga xamante ne ni euh, suñuy naataangoo lañ c'est des agents Qu'est-ce qu'il dit Bougane. je sais, je sais, il va parler où Ok. Fallait de faire que. Voilà, président euh, Bougane. Euh, voilà, une pierre. Hein? donc. Euh, euh, buur foofu doxat voilà kon balaa noo yëkkati jotaay bi ñu am kàddu ko président euh, Bougane euh, mu prononcé ba tey dee xata ba tey ba tey dee xat de voilà ah, buur ñu def ko fii kon benn fan fan fan nga tànn. kon na duggee na dugg nii. kaay ni na dugg ci espace bi idi may ko mu dugg ci espace na dugg ci espace bi kaay dugg nii fii cadreur yi buur organisez vous waaw xar bi ñëw na ñëw na gars on commence hein Ani Sadibou Président Bougane, PDG des médias, très rapidement. Voilà, le ci hôpital principal daal di teewee lii di kooruk ñenn ci ay naataango ñoo xamante ne ñu ci métier bi ban sentiment nga ci nga ci mën a am. balaa nga commencé loolu ñu may ñu taxawaa nga commencé. parce que buuxoo bi tamit affaire bi jarul buuxoo nañ ñëpp taxaw na calmement rek je ndànk rek dégg ngeen gars yi ah. ndànk rek. voilà voilà sëgal yow. c'est léegi président euh, tey euh, nga ñëw fii teewee lii di lëkkal di ñett ci ay naataango ñu nga euh, di Ousmane ak bi nga am en tant que nekk journaliste xam métier bi xam aussi li mu laaj ak lépp luy risque lu ci aajo. alors euh, euh, maa ngi leen di xamal ne déjà euh, méttit dong lañ ci mën a muy muy lu ñu metti yàlla nag bu soxla dañuy nangu mais ku ne xam na ne situation bi encore lu lu lu metti la lii ku ne xam na ne lu metti la nde c'est des jeunes journalistes et surtout moom euh, Abdou Mamadou Abdou Mamadou si bu leeral particulièrement moi je le je le connais euh, ak yow Cheikh bien sûr yéen a doon ànd ci euh, rencontre yu ñu mën a def depuis plus d'un an chaque fois c'est un gos engagé très professionnel toujours présent il est toujours là exigeant et à l'heure euh, kon euh, c'est une perte énorme pour la profession euh, di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe li tax mu metti mooy nombre bi ñu doon ñett en même temps ñaa euh, cadreur ak journaliste ñoom ñëpp ñu àndandoo suñu borom jël leen ci condition bi nga xam ne moom la ñu xam ñun ñëpp euh, bu doon ci beneen circonstance dañuy jàpp ne euh, soldat bu daanu ci xare ak ngànnaayam la ils sont ils ont laissé leur vie euh, pour servir la nation parce que ñoom aussi li ñuy def mission de service public la mooy informer et ci loolu la ñu nekkoon ku ne xam na ne moment boobu ñoom ñu ngi jugee Tamba jëm euh, Kédougou man yàlla dafa def euh, maa ngi woon ci zone boobu parce que maa ngi woon ci daaka bi euh, bi ma dellusee lañu ma yëgal information bi quand j'ai ñu ne ma ñëpp dem nañu muy lu metti ci sénégalais yi metti ci ñëpp ñuy dallo dalal surtout seen i mbokk ak groupe de presse bi nga xam ne foofu la ñu bokk mu di leeral groupe leeral Euh, donc par ma voix euh, maa ngi koy jaal ñëpp mais rawatina groupe leeral ak suñu frère Dame euh, mais j'en profite également pour jaale ko les jeunes reporters du Sénégal parce que xam nañu ne c'est des gens engagés c'est des gens yoo xam ne bëgguñu lu dul lu jëmale liggéey bi kanam ak cette profession lii yàlla na doon déclic boo xam ne Euh, dana fi jaare euh, indi dal ci li nga xam ne moom moo di euh, profession bi parce que ñoom ci seen bopp moom mii di Abdou Mamadou xam naa ko parce que nee naa la dafa doon nekk ci événement yi ñuy def yëpp dans le cadre du mouvement citoyen gëm sa bopp yëpp moo ko moo ko moo ko doon couvrir ba ci Bignona bu bi ñu mujj dem euh, dem nañu def aller retour pendant vingt trois heures ñu nekk ci oto yi et il fait partie de ces yoo xam ne bronché wul Euh, xultuwul deful dara donc c'est dire que c'est un jeune professionnel qui est parti mais loolu nag euh, li ci des rek mooy yéen ñëpp ngeen ñaanal ko. d'accord mu doon aussi loo xam ni dina permettre euh, xëy na ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu sécurité au niveau des routes ñu gën ci am beneen taxawaay defe naa tey doon na mbir moo xamante ni dina war a gën a mën a interpeller ñii di maanaam acteurs yi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu woowu mais dafa war a Euh, et les décideurs en premier xam nga suñu tali yi dama koy wax tout le temps euh, tali yi xat na xat boo xam ne euh, bu ci bu fatalité di ñëw rek musiba lay indi et tali boobu biñ ko defaree yàggut mais ku ne xam na ne mook suñu tali yi yëpp ñoo yem c'est des routes qui font qui font maximum si mètres donc ñaari camion rek bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu rombante dañuy fees tali bi donc Euh, bu ñu ci boolee li nga xam ne moom mooy défaillance humaine euh, boole ci souvent ku ne xam na euh, nit ñi comportement bi ñuy am ci tali bi ça devient benn cocktail explosif boo xam ne musiba dong la mën a jur ci réew mi alors loolu nag dañ ciy profité rek di lancer appel képp koo xam ne da ngay dawal oto nekk ci tali bi moytu moytu vigilance daw ndànk dal ndànk comme ni ko woykat bi di waxee Euh, lii metti na trop et vraiment parfois tu n'as même pas les mots mais nag euh, nañu ko dénk suñu borom di ñaan moom euh, Abdou Mamadou man mi nga xam ne xamme naa ko xam naa ko suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe moom ak Ousmane Ndiaye ak cadreur bi di Yoro dañu daanu ci toolu xare nañu leen ñaanal ñaan li ñu gën a soxla fi mu nekk nii. contrôle bi nag ci au niveau des contrôle bi ñu gën euh, mais mais mais mais mais c'est un tout quand je parle de de de ça pour moi c'est un tout xam nga axe boobu et boo xoolee su ma juumul c'est c'est un c'est un camion malien. xam nga axe boobu dafa nekk axe boo xam ne daanaka mën naa jàpp ne aks commercial la. donc nit oto yi fay daw booy xool camion malien yi ñëw ëpp ci yoon boobu parce que li ëpp ci euh, seeni bagage port de dakaar lay jóge donc euh, war nañ ko yaatal war nañ ko sécuriser et surtout surtout axe boobu également ñu euh, gën leen a doté de de de de de de ay établissement sanitaire yu nekk aux normes parce que foofu war na am hôpital de niveau 4 wala niveau 5 pourquoi parce que diggante Tamba ak Dakar déjà ça fait plus de cent kilomètres pour nga daw ko ça te prend minimum six heures donc admettons même nit am blessure ñu war ko évacuer c'est-à-dire nga évacuer nit ci situation yooyu bu fekkee ne defuñu ko euh, par euh, avion ça devient une catastrophe donc euh, zone yooyu c'est vrai ñu ngi def ay efforts mais efforts yi nañ ko gën a yokk efforts yi nañ ko gën a dolli personnel de santé bi nekk ci zone yooyu nañ leen gën a dooleel parce que ils en ont besoin c'est vrai que lii prétexte la pour euh, attirer l'attention de tout un chacun attirer l'attention des autorités ñi nga xam ne ñoom ñooy les forces de sécurité surtout pour ñu gën a bàyyi xel ci contrôle bi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy oto yiy dem ak a dikk mais ku xool ni mbir yi demee ku xool image yi moi j'ai regardé ça une fois j'ai plus euh, nangootuma xoolaat image yooyu parce que j'imagine la, la violence de de de de de de l' accident euh, nga nga war a imaginer ni suñu borom jëlee seen bakkan nga xam ne encore une fois jot na ñu nit ñu delloo si xel yi ñu bàyyi xel ci sécurité doomu aadama yi parce que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les reporters bu ñuy dem ci tali bi bu ñuy dem ci yoon bi euh, da nga leen di jox oto da ngay def assurance da ngay def leneen ak leneen mais am na loo xam ne fatalité la bu fatalité ñëwee yàlla moom mooy joxe bakkan yàlla moom moo koy rocci mais encore une fois nañu ci boole sabab sabab lu gi mooy euh, gën a veiller ci sécurité routière gën a veiller ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi nekk ci liggéey bi parce que encore une fois euh, muy Diallo def na liggéeyam ba suñu borom jël bakkanam ci toolu xare kon mën na ma wax ne ñoom ils sont tombés euh, arme à la main. Euh, kon di ñaan suñu borom teeru leen ci aljana yu gën a kawe yi. ngeen jëf merci. jërëjëf jërëjëf voilà jërëjëf. nekkoon euh, Bougane Gueye PDG des médias doon yëkkati kàddu njaalam. ak réaction par rapport ak. voilà kon mbokk yi di leen euh, jaajëfal ci ànd geeg topp gi ngeen doon amal ci direct gi fi am ci levée du corps sunu mbokk yooyu euh, daanu ci toolu xare di leen jaajëfal.